junior la suma mag la walla suma morom la xam naa ay weer la magante yooyu suma ko magul ay weer la may magee may tuub di jégalu yàllaa ñu gën a xam seytaane des fois bagages yi duma xam lan la suma yaay ji des fois mu wàll ma tamit si bagage am ma am noo xamante ni sax voilà ku yore yaay ji dof yore mag ji dof des sax xel jékki-jékki rek voilà comme deret la famille la mais Cissé Lo suma papa la suma mag nga suma jëwrin nga murit nga taluloo loolu ndax yaa ngi foofu yor sa daara yàlla na jàmm di jégalu murit yi Tidiane Xaadir Laayeen ngeen jëf su fekkee juum naa wala am na vocal bi ma doon wax ak moom ba mu rëcc ba dem nekk si net yi maa ngi tuub di jégalu voilà parce que unité daal yàlla moo ñu gën a xam maa ngi jégalu c'est Dof Ndeye bii nii yónnee ma léegi numéro téléphone am laa wax xale bii nii yónnee ma téléphone léegi léegi léegi nii nga may wax ay nangam bu dee li ngay wax dëgg la yónnee ma léegi nii numéro téléphone am yow la ngay tuus. suñu la yónnee xale bi tamit sa xaalis lay lekk rek nga naan ma sa gel bi nga def statut e su ma ko wooyee mu kii sa xaalis lay lekk rek yow amoo gengs ñànguloo rafetoo yaa ngi dégg yaa ngi mel ni dàngin sa jabar bu ñaaw bi nga naan ay sa gel bi nga statut e la nga soxla yow sa baay parce que rek. maay doomu dof bi waxal sa baay mu dimbali ñu ci pikiir yi su dee sa baay jàmbaar la si saloo xeexkat la siñor loo nga naan jox ma numéro xale bi su ma la joxee numéro xale bi xale bi lekk la lekk sa waa kër ba ngeen torox yéen bu dul woon Macky Sall yéen da ngeen ngeen di torox sa baay mu ne mooy baay faalu Macky Sall ngir ay million booy ñun xam nañ seen démb de li moo tax waa Touba def leen liñ leen def lii moo ma neex nag su ma waxee nga tontu ma lii moo ma neex ma monté affaire yëpp après sa baay siisaloo xam ni moom du jàmbaar su doon jàmbaar tubaab yi ne dañ fiy dugal ay pikiir pour rey africain yi lu tax kaasul lu tax sa papa kaasul yow xam nga moom bu baax xam nga ni dëmm yi fi ñu nekk foofu laay noyee man sa baay maa ko yóbbu kër dëmm yi muy Grand di Pikine di caaro yi doo def nànk yow sa papa jox ma fetal ci campagne bi ne yow nga ne dangaa bëgg yor réew woo ñu mel ni ñoom daf nday jox leen ay fetal ah naan ku ma sànni xeer rek door leen bal sa baay mënul yor réew mënul yor réew Signor Lo te après nga tontuwaat nga xool naka waar yow kenn xamul la xamuñu la xamuñu seen waa kër xamuñu leen dara sa baay daa bëgg bës rek ne mooy Baay Faalu lu Sall de waaye doo dërëm ombu xale yi rafet yi ngay gis man lañu nopp man lañu nopp nobbuñu la nobbuñu seen waa kër bandi yi gën a bon xaramata njaay biir Grand Yoff naa ko sa biir kër baay toog ak moom sa biir néegu saal sa yaay nday day loo mu may njaral di ma defar ay may naan ay affaire maag sa baay 6 heures du matin la ma sa am 10 personnes ma koy andil ay 2000 personnes nga naan ma nee naa man waxuma ak yow sa baay laay waxal ak Macky Sall maa gën a siiw sa baay siisaloo maa ëpp fleur sa baay siisaloo nga naan ay jox ma jigéen yi la jox numéro gel bi gel bi dina wan ne doo bandi gel bi dina la wan ne yow doo bandi sama numéro statut yi ngay gis naan boo ma joxee sa gel ma doxaan yow da nga bari waxtaan yi quoi doo bàyyi sa bari wax ji yow namp yu naqar yi ngay dugal fii di dof dof du naan ay yow doo dara yow dof ndey nit yaa ngi dee ñu dugal fi ay vaccin ñu ko piquer doomu sénégalais yi ñu war a dee sa papa mu ni moom loolu moo tax muy dem Europe di ñëw waxu si nga ma ay dof nday ay jamono jaa ngi naqare nga ñuy jaay bari wax ay da bari wax sa papa sisaloo ku ko gën a bari wax sisaloo ku ko gën a bari wax taxaw si télé bi di saaga mbaake mbaake yi di saaga muri di yow junior loo nga ama dof nday da nga bari wax man amul bari wax sa papa sisaloo mënu si dara foog ñu wax ma ne waxal sa papa mu li lijjanti kii bi nu mu tuddati pikiir yi ñu rey waa dëkk bi dugal nañ ko fii Sénégal sa papa chaque jour du toog Sénégal mi ngi tourné rek si Europe bi ba pare nga ne ma dof nday feebar baa ngi nekk si réew mi nga ñuy jaay bari wax du ñun duñu wax man su ma waxul kan moo ñeme wax rapport sénégalais di ay góor jigéen yenn booy di ay défin ngi si ëpp la majeure partie bi laa wax hmm? nga ne dof nday yaa ngi wax nii man maa wax ak yow kay junior loo parce que sa papa si sa loo lu tax ñu jox ay millions muy tukki lundi mardi mercredi jeudi vendredi jaabante si dara te sa papa ku wax ak ma Macky Sall mu taxaw ci tali bi di saagawaate yow xanaa da yaakaar ni ñun ñun lan la man si ñor loo yow man yow taxaw ma sax may wax man na xam nga li ma lay waxante ne nii man yow da nga minime pour wax may wax ak yow parce que yow junior loo kenn xamu la kenn kenn xamul kuy junior loo ak kan mooy kii kii loo ak sangam kenn xamu leen yéen fi ñu leen xamee à cause de may ngeen waari sekk xaalis pour mu taxaw way leen mais yéen dafoo leen dara si dëkk bi kenn xamu leen. sa papa chaque jour mu jaay dëkk bi làmmiñ bu rëy si wax fii saaga makki Sall def nii def naa nganda ngandalu si dëkk bi bu dee dëgg la yow Signor Lo sa papa si selo na wax ci pikiir bi ñuy dugal fii nii laa la wax muy rey doomu aadama yi man la dof ndey maa ni nga wax ak sa baay si selo yow Signor Lo nga naan ma bari wax yow tey laa gën a tàng sax ba nga ba nga tontoo fa laa gën a tàng yow sa papa si selo vocal naa ko di xaar tontoom sa bari ak sama wax bi la boole ñu jox ko waa sénégalais yi ma ne nga wax sa baay si Lo mu wax si piqûre bi dugg na ci Sénégal bi yéen a ngi rey doomu africaine yi sa baay mu ne mi ngi si politicien bi lu xew mooy kaas te boobu ba tey kaasul waxul dara si piqûre bi parce que lu tax lu tax sa papa waxul si piqûre bi ngeen andi fii Sénégal yi Afrique pour rey africain yi te sa papa léegi léegi ku waxoon léegi si Macky Sall mu dem si tele yi taxaw eh, nga eh, nga ngandali booy yow da ngeen ma gën a dof yow nga xam li ma wax yow. maa gën a siiw sa papa siisaloo ba mu soxlaa nit yi fii la ñëw di ma laaj trois cent parrainage ma jox ko deux mille nit nga naan ma ay dof yaa ngi aalu ay feebar bi nekk si réew bi feebar bi sa bàyyi nañu si jàppale mu taxaw si tali bi mu ci télé bi mu kaas wax pikiir bi bu fi duggee nangam sangam comme nee nga seen bàyyi dafa am fit sa papa siisaloo amul fit yéen waaye da ngay dërëm yow maa ngi yéen rek ñu ci tasee léegi léegi laa la waxante ni maa ngi yéen laa la léegi léegi ñu taxaw ci justice lii fetal la lii Cissé Lo moom moo ko jox si campagne bi lii dina leer ñii bëgg yor réew rek jël si ay nit yi dof yu mel ni ñoom dof mais di jox ay fetal